Euh, mbokki internetu Géejawaay info ñu ngi leen di nuyu tey nag ñu ngi seet si ndaanaan champion ñu naan ko Boy ñaar 2 doon bëre le 13 janvier doxoon ci digganteem ak ki nga xam ni mooy euh, Ndongo Lo Boy Niang 2 ginnaaw bi ñu la joxee kàddu gi ñu ngi lay nuyu. waaw maa leen fay di ziar képp ahlu làmb daal. waaw di féliciter Balla Gaye si ndamam li mu di encourager Modou di ko wax ni ko làmb noonu ah di encourager sama adversaire di ko xamal ni ko làmb tamit noonu la ko kuy wuti mooy ñàkk kuy wuti mooy am waaw di nuyu monde entier di nuyu waa gi yëpp waaw. Euh, Boy Niang ñu gis ni da nga doon bëri combat bu bëri woon coow doxoon sa diggante ak ndongolo yàlla may la ci ndam ñu gisoon combat bu bëri woon tension la sa poulain Balla Gaye doon bëri ak Modou bis boobu est-ce que diisul woon ci yow. waaw sa sa tête de ngay wax. bul wax sa poulain sa tête de file. waaw euh, bis boobu man réyul ci man man amul bis bi rëy ci man. Mm-hmm. man xam naa ne yàgg yàgg yàgg yàgg bis boobu moom dama koy gérer dama koy assurer parce que su ma ko assurer loolu courage beneen courage lay mayaat Balla gay de looloo tax bis boobu ma teg suma bakkan waaw parce que waruma ko woon perte. ñu gis ni combat bi jegewu xewoo sax jege cumbukaayu Balla Gaye da nga pousse fële euh, dem euh, taxawi beneen côté bàyyi Balla gay wala combat bi moo ni tayoon wala dayo bi moo toll noonu. loolu de c'est doomu aadama yi tey jii su ma jege woon Balla Gaye dinañ ñi bisam ñoru ko te man bis bii dafa ma ñor waaw parce que bis bii man dama kolifay ah, dama bëre kolifay mu daan ma. Mm-hmm. te kolifay kii moo ko daan ah, ah, nongolo moo daan kolifay. ma daan Kewel kewel daan kuli fay te ñoo ñep bi ñuy bëreeg nongoloo lamb ju diire lañ bëreeg nongolo ñew nongolo sonal leen ñom ñep man bima ñewé ma wan ni damay corriger ñooñu wan ni combat bima juggé dama joom motax boy booy may ma sax mu xalaat wa ma ñoo dal si kawam rek lamb jeex dañu gis ni combat bi da nga bëreeg mom experience surtout loolu bëggoon nañu nga nga delu ci waatal ñu ci ndax mayoo ko fu mu yaké nakam ségal lamb ji xam nga moo leen réeral ñom pour ñom man paa bu dem ba dik la man samay morom ngi ni isa xamul ma la man lamb ji lamb ji looloo leen sonal tamit paa du am doole paa du am doole Boy ñaa bu ñuy xool ci wàllu làmb heure bi bu bu làmb waxee dëgg rek heure bi euh, yoon bi xaw am xajam-xajam quoi ci gis-gis waaw waaw mais loolu loolu du xajam-xajam sax loolu du xajam yoon yàlla moom mooy xool nit lu ko neex mu def ko ci moom man làmb dama ciy lekk force bu soobee yàlla dama ciy lekk far force sama wërsëg xalé la ñëmé na entrer nak ñëmé na té duma tapet waaw dama ci lek far force soobe yalla bu may dox ci mbéd nak fi ragal la fi mais su arbitre bi duma tapet man waaw lool la bëgg ñu xam ko parce que ñi ñëpp géewal nañ ma mbapat mbapat bëré na 39 combat mbapat 8 défaite la am kon champion nga waaw non la demee nag euh, combat bi euh buñu koy xol euh ci walu lambu bi nga daanee Ndongo Lo fan la la mën a yóbbu en tant que champion bu toll ni booy Niang fan la ko làmb mën a yóbbu ci combat bi mu jógee la 13 janvier. combat bi ma doon bëri le 13 janvier. moo nekk sama 26 combat arène. sa 26. combat arène. te ay xale rek laa bëreel. dootuma bëreeg benn xale. lu tax loolu. waaw samay moroom laa bëgg a bëreel wala mag ñi may ma sens comme que neen mag la samay morom ma nuyoo ñoom ñoom ñoom mbër yu bëri ñu ngi fi. bu ñuy ci walu lamb dañu nan boy ñaado comme li wax sank ba du yoon bi moo xajamoon wala parce que waxal ngok wax nga ko léegi pourquoi lu tax sa moro sa adversaire yi nanguwuñ la jël ba ngay jël ay risque di dem di bëre ak boy lu ko waral waaw mais lamb mo demé non rek lamb mom nit mom bu la dépasser tout rek day baña di jëlat mais man chaque année ñu ne ma xalé xalé bi fi gëna teuf mako daan gis nañ sa combat kewal wala kewal mo mën ci boy yi te man mako daan combat bu metti waaw kon man jaratul may bëreeg ben ben ben ki ben boy booy bëreetuma ak moom billaay wallaay su ma naree ak ben xalé dem liggéey ah merci yow da ngay gëna am jom rek waaw ta man yaakar naani mom lamb mom moom xam ku seetaan samay lamb xam jom la ci def fulu fayda bëgg suma yi bu ñëwé ñomit xam kat suñu grand frère fulu lay def ak fayda parce que lamb lool mo fi am ñi ñeneen ñoo fi nekkoon ñu dañ fiy jugee ñun ñu ñëw léegi bu ñu fi jugee ñii ñooy ñëw te ñii war nañ leen a wan loo xamante ni boo lëgatee ñoom bu ñuy wax ak ñoom ñoom ñu dégluñu xam ni kii def na fi dara man sama ambition ci làmb loolu la man làmb dama bëgg su ma génnee ku ma xool ma xool la ndax su ma duggee si làmb du ma wane ñàkk jom parce que damay tontu soo ma waxee damay tontu soo waxee man dama lay wuyu ba tax na su may bëri dama siy def fulla ak fayda ak jom waaw ah, bëgg suma rakk yi bu ñëwee xam ni seen grand frère fu la daan def ak jom ba tax na ñoom ñu di ko def loolu laa loolu laa loolu mooy sama ambition ci làmb waaw. ban euh, combat bi ban autorité ñoo la jàppale ci sa combat bi nga jógee ndax gis nañ mobilisation bu rëy macha allah nga indi ko le treize euh, janvier ci Léopold Sédar war mbooloo bu bëri sax macha allah. waaw Alioune Sall jàpp na si combat bi. sama maire Béydi Béydi jàpp na si combat bi ba pare. jàpp ma si loxo yóbbu ma ba si Alioune Sall nu ko kii dama bëgg nga jàppale ko si combat bi. ah maire bi moo def loolu yëpp. maire bi moo def loolu béy di. yëg jàppale na ma jàpp ma ci loxo yóbbu ma ba ci Alioune Sall ni ko jàppaleel kii Alioune Sall tamit jàppale na ma Alioune Sall maa ngi ci ginnaawam waaw. bëggoon nañu xam Boy Niang 2 mooy ëllëgam ci wàllu làmb. waaw ëllëg sama wax làmb ci ëllëg mooy am am li nit ñi am rek. mooy lan waaw am kër gu baax. waaw am ci kër gu baax am limi samay morom am. egg fi nit ñi egg ku xol seen wara am jom. ci ban côté. ci bo déggé man la ku xor ëmb seen wala am jom ëmb seen bi ñaan magen na ci lam am li mu am ku xol boy kayre boy kayre bi am li mu am sàkkamtumaana man ma nek boy bu ndaw wara xare badar si lamb waaw te billahi wallahi wa ta'ala boy gisuma boy bu lu bër ji. lutax ci ci ñeme ci xeex noonoo gisuma ko man duma ma tàppet du ma ragal te bu ñu wuree bu ñu baree rek nga xam ni xama mooy loolu waaw mais dañu gis sa benn combat nga bëri combat bu metti combat bi nga bëree sa diggante ak kiwal ñu gis nga ñëw bëri ak ndongoloo ci biir ci biir làmb ji ci biir bëre bi nga ko daanee waaw sama combat mën a kiwal bëri naa combat bu ko gën a metti mën a boogaa moo gën a metti ndax man ak moom dem nañ ardo ay ay ay ay ay ay ku ne dem na ardo ay juróomi yoon boobu moo gën a metti mais sama combat mën a kéwél confirmation la woon parce que dañu kéwél moo mën ci xale yi. dëgg la loolu la ñëpp waxoon waaw tam tamuy dëgg. Mm. mu tegale treize combats treize victoire mu war a bëre ma ak moom ku ma wax rek mu ne ma kéwél dalay daan loolu tax làmb jooju ma yoon teg jom ak fulla ak fayda. ma moment yooyu koo wax mu ni kéwél da lay daan nan nga ko dundee euh, nan nga ko dundee en tant que champion màgget waaw maa ngi jéegul balaa ma balaa ma doon wax dara sax dama waroon tudd kii quoi Alioune Seye parce que kooku kooku kenn la ci man. billaahi wallaahi wa taalaay su ma su ma amee jom wala ma am courage Alioune la maa ngi sant Xaadim Mbay tamit day sonn si man ay ñoom giif sama gaay yëpp maa leen sant saada mu nu ma ko fay suma gaayen la saada saam suma xarit la sama doomu ndey la suma lépp la te gis naa nu may jàppale combat bi ay xaalisam bu bari la jël def si waaw boole moo jàpp si daal ba ñëpp xam te moom sama diggante man ak moom su mettee sax lay gën a jàpp waaw di sant ñëpp di sant waa koñ bi ñëpp di sant samay samay samay àndi jàmm daal di sant ñëpp mënuma mënuma lim su ma limee damay juum parce que tamit xama yene rek mo am solo ñom amuñu luñ ma jox mais ku ci nekk yene nga ma am ndam waaw tamat lima gëna bëgg sax ñom buñ lima ma bëgg sax man bëgguma xaaliss bëgguma ñu jappalé ma ci xaaliss bëgguma dara suma ma combat ñom ñëpp ñu mobiliser wu ñëw ñu xamni man sax am lu lax li ñuy wër ci mbeur mi ci man parce que loy dem di faralé kenen te gis sa mbeur bo xamanteni soko pou tégué loxo rek mu dem nga war ko mën teg loxo mu dem man bërigu ci mbarta la loxo rek day dem billaahi wallaahi wa taala Ama Balde moo ne ma soo dëkkoon pikin dépassé nga fii. lu tax loolu. lu tax loolu ndax Pikine da ngay gis mbëru cuune sax ñu gonfale la la ba nga nekk mbër. ñàkk ñàkk jàppale la wala ñàkk mobilisation. jàppale bi moom su ma waxee dëgg rek des na. des na waaw su ma waxee dëgg man jàppale dafa des si man man su ma amoon jàppale. na ngeen dépassé naa fi. mais dañu gis combat bi paase nga indi macha allah supporters yu bëri stade bi booy Niang booy Boy Niang 2 euh, nga foog ni combat bi est-ce que wuyu si wuñ la woon. waa non man mbëru amateur la. mbëru amateur. waaw man boo demee ci promoteurs yi ñoom ñëpp dañoo xam man man su may bëree. Sandaga ñëpp ku dégg Boy Niang bi ah lamba su bàkkoo mu neex su bëree mu neex man mbëru amateur la man musuma bëree lamb. bëre naa six grand komba mosuma bëre làmb grand combat bi di sëgg nga gis stade bi vide musul am. lu tax loolu lan mooy si secret. noonu ñëpp dañuy toog xaar combat yi xam ne man su ma bëree day neex man fu ma ma demee dakaar loolu la ñuy wax sa làmb damay ñëw seetaan parce que xam nañu soo bàkkoo mu neex soo bëree mu neex. ngalawaay waa géejawaay ngeen am doom ju mel noonu bàkkoo mu neex su bëree mu neex jàppale leen ko gunaas géejawaay ñëpp laay wax. kon woo wooteel autorités yi nga xam ne ñu ngi lay dégg yaa ngi euh, yaa ngi Guédiawaye info jot na tamit nga lancé benn appel boo xam ne autorité yi dinañ la jàppale pour soo amaatee combat ñëpp ñëw jàppale la comme sa mobilisation bi passé nga def le 13 janvier ci Léopold Sédar Senghor. balaa may wax dara nag dama am lu ma plané dafa benn boy orca ñu koy wax mbaytin junior ak euh, lamp ñaar ñooñu sama kër lañ nekk trois mois durant trois mois sama kër lañ nekk. lu waral loolu. di ma yee fajar di ma. contrôler di ma wax defal lii ñaar ñoo ñu ma leen fay. lan moo war lool loolu combat bi moo toll noonu wala. waaw kenn ki dafa nekk sama bo ñaar ñi dañoo nekk sama booy di liggéeyam boog ay xa ay ay xaritu ay xaritu kii. ndongolo ndongolo Dakar ñooñu ñu ko ndongolo moo mën Maguette Seck ñoom mu jaral leen chaque jour ñu taal seen moto di def lépp. chaque mm-hmm. jour mm-hmm. waaw. ba tax na nag xam nga làmb ji yàlla suturaal na ma si. nongoloo nag maa ngi koy sant di ko gërëm parce que man sama mbër la kon mbër dina faa mbër kooku dama ko faa lu tax dafa mën a bëre kon ndaanaan ndaanaan daan na ndaanaan kooku dama ko faa dama ko bëgg man billaahi wallaahi wa fekk naa ko gàm bi muy bëre ma ñëw ba si moom ñaanal ko mais moom xaw ma fekk ñu war a bëre ñu naa ba gàm fekk ko muy bëre jour boobu moom moo daan ma ñaanal ko ni ko yàlla na yàlla may ndam mais mosoo foog ni yéen ñaar di ngeen di ngeen sëgg bëri. non man Ndongo xamoon naa ne man moom dañuy bëri. lu ko lan moo ko waral làmb moo ko laaj wala. parce que combat boobu noonu rek moom moo ko dese woon boobu rek moom moo ko dese woon. mais dañu gis ni mu jugee woon ci ñetti defet Ndongo Lo avant kalaaf bi la ñu waroon bëri sax avant kalaaf bi ci lañu waroon bëri far mu dugg si kalaaf man bëreeg moom xamoon naa ne dinañ bëri te man xamoon naa ni billaay wallaay wa taalaay booy si làmb ji yëpp gisuma ku ma si dàq bëri. barke Alxuraan mais màgget combat bi dañu gis waa Grand Médine préparé ko ndax Ndongo Lo dafa jóge woon ci ñetti défaite mhm. mu ñëwoon sa diggante ak yow la 13 janvier war a confirmer waat. Mhm. ñu gis nga daan ko. waaw mais loolu la waa en tant que ku ko jiitu ci làmb ban conseil nga koy conseillé. non ndongoloo li ma koy conseillé mooy. gisa mbër. mbër da ngay am gétt. man li ko dal nii daloon na ma. li ko dal nii daloon na ma. moment yooyu nan nga ko dundee ak lan moo la delloo si ci tañeer bi. moment yooyu dama am sama gétt arrière dem wuti lu mu gudd gudd may fanan sama kër duma fanan kër kenn duma lek ci duma lek ci fenn barke arxuraanu karim liko dal ni da ci juga legi, day dem ba faté ko. kon dal lamb la. lamb la day dem ba faté ko. lamb mo bindo non mais may sante ya yaa bu baax ma ko fay may sante ma koñ bi yépp di sante Aïssa. di sant Baye Bass di sant ñëpp. koñ bi ñëpp Maguette dañu gis sa boo yëpp génn sa waa koñ sama mafia bi lan seen relation lan la ndax lii mooy jeunesse te lii mooy làmb nit amul lu dul koñam. fii moom fii moom fii moom ku soxor amu fi koñ bi fii nii ku soxor amu fi xay na xay na xay na jot mooy manqué rek ak tamit xama moyen moo demeewul noonu rek mais fii kenn soxorul quoi parce que sooy génn dina la kañ dina la ñaanal ndam. dinañ la encouragé loolu rek moo ci am solo waaw maa leen di ñaanal nag yàlla leen yàlla suturaal koñ bi seeni koñ bi ndax bu ñu amee gis naa ni sama làmb dootul metti maa leen di ñaanal ku ci nekk sa situation yàlla na changé waaw changé bu baax a baax ba bu ba bu ma amee bis ñu mën cee sonn carrément carrément. Euh, Boy ñaa ñu gis euh, sa turandoo bëggoon nañu xam booy ñaa bii di bëre nga tuddee sa bo wala Boy Niang bu kees ndax. jot na nag nga leeral ko téléspectateur waa info yi nga xam ni ñu ngi lay seetaan. man bi may bëre sew diis laa tuddoon. sew waaw. mais dama bëri mbuur. benn paa bu ci man ni ma yàgg booy ñaa benn ngéen booy ñaa ban. booy ñaa bi gaañu. gaañu bu kees. waaw booy ñaa bu gaañu benn ngéen mu wax ma loolu. mu nga ci laa tuddee booy ñaa. booy ñaa waaw boobu yàgg na. bobu Boy bu déggul est-ce tuddo gumu bobu Boy bu déggul beregul sax. beregul kon ya ko njëkk ci Boy Niang 2 man yoyu yoyu yep amul sens. yoyu yep nepp di. mais jonne na nga nga leeralal parce que Boy Niang bis ken ñu bari dañu yex nañu xamni ni Boy yex nañu xam Boy Niang mom la tuddé sama bop waaw koku mako dak dàq ma gëna ko ma gëna nekk mbeur wallaahi wa taala. c'est que nag làmb c'est que c'est que c'est que li wax nii. laa bëgg nga déglu ko bu baax. maa ngi lay déglu c'est que làmb làmb mooy li ma la wax rek puus dañ ko puus mu dem. maa ko gën a nekk mbër maa ko gën a billaahi wallaahi wa taala ñi ma gën a nekk mbër dañoo bari soo compté ci làmb ji dix mbër gënuñu ma see nekk mbër soo compté dix gisuma ku ma gën a nekk mbër barke Seydina Muhammad lan mooy mbër mbër mooy nga ñeme mën bis jour bis ba nga soulagé wu nekk ba arbitre bi sifle nga nekk loolu mooy làmb te man musuma tiit bu fekkee mus naa tiit ci làmb yàlla bu ma fa nag musuma tiit man di ñaanal ñoom papa booy jinne am ndam di ñaanal booy yépp am ndam di ñaanal caat bu wàll bi bëree dimanche mu am ndam dafa am sama benn xarit boo xamante ni nag xaadim siba kooku sama gayen la kooku xaaju guddi la lu ne lu ne la doon su ma amee lu su ma amee lu may def dama koy woo téléphone mu ñëw dem def ko ñëwaat kooku sama sama nit la ni ma sa ndam sama ndam la di si sonn waaw di sant ñëpp nag ñëpp a ci sonn nag mais moom daf ci sonn waaw. Boy Niang lu gën a métti gars yi ne nañ bëre combat capital waaye sa tëdd sa tëdd fil di bëre loolu mama yu métti la en tant que ndaanaan nga nee nga bis du la dépassé waaye jour boobu lan nga yëg. wa jour bobu ñepp dañ doon wax naan mbeur mi ñepp dañ doon wax dal naan dal lay saraxé affaire yoyu ko mais en tant que mbeur nga dégg lool lu koy jàng do nga dund jàngatee. yow man mbeur yi dañ ma gëna xam am kër yu baax gëna ñu ma xam dé ñom dañuy dem wuti sëriñ rek man ma dem wuti sëriñ waaw ta man fima dem doyna na ma fima dem xamna ni bis bi du ko ñàkk billaay te loolu sax ñàkk gëm sa bopp la ku mën a yàqal nit yokk sa bopp man kenn mënu maa yàqal lu war a ñëw ci man moo tax man su ma daanoo damay wax yàlla la su ma daan laal giif giif a ngi nii giif su ma garant la ñooy nekk chaque jour musuma daan daanu ba nit nit a ma daan musuma daan ba nit nit a ma daan man sama lépp ci yàlla laa ko wér yéenewu ma benn mbër lu bon laajal kii ku ci am bis dina ñew luma ci mën ma def ko su wow ko ma sumeeku ñëw bëreeg yow su jaree wax ma ñew wax ak yow waaw musuma daanu nit ngi ñom pam mam fa ñoom andaw ñu dox ci tank jamm waaw ñoon nañ ci dox tank jamm mais gisé nit gisé ma xamal leen ni duma la top fa ngeen jëm moo soriwul ta man duma sétane digënté Elton ak Balaga ak les di te mag ñooñ dinañ taxaw weer leen lañ war a def parce que ay baaxuñu. Euh, mbokki télé internet yu Géejawaay info tey nag euh, li lañ ñëwoon euh, seet si woon booy Niang 2 mu doon bëri ak ki nga xam ne mooy Ndongo Lo daal di koy daan le 13 janvier ci lépp Sada Senghor Boy Niang 2 sa dernière tàggatoo balaa ma balaa maa dem ndax lu jiba jeexul jiba mosu fee jóg. waaw mais maa ngi sant. maa ngi sant ñu fi teew ñëpp di sant kii nii. tu Guédiawaye info euh, mbokk yi lii la woon tey nag ñëwoon nañ fi nga xam ni mooy kër euh, Boy Niang 2 Boy Niang 2 nee na nag mu ngi gërëm ñëpp ñu ko jàppale ci combat bi mbokk yi beneen yoon ak beneen ndaanaan.